kan la wàcc waaw tabaarakallaahu xam nga koor dafa nekk jàmm yàlla bu nga xam ni dafa bokk ci les cinq piliers de l'islam moo tax bi ko yàlla di wax dafa ni yaa ayyuha alladina amanu yaa ayyuha alladina amanu mu woote ni képp ku gëm yàlla sama sëriñ sëriñ Mouhamadul Moustapha si moo ko waxoon moo ko firee woon yaa ayyuhal lazina amanu mooy yéen ñi nga xam ne yéen a nangu te ginnaaw bi ngeen nangoo ci ngeen génne ku ngeen warul woon a gën kon nag képp ku nga xamante ni kii moomin nga képp ku nekk moomin koor war na la eh, ci ci ci en général mu des nag koo xamante nii am na ngànt ngant bi moo koy teggil li tax mu bañ a woor am na ñoo xam ne dinañu am ngant parce que mënuñu woor ci at bi yëpp wala ci seen dund yëpp ñooñu yàlla da leen di teggil koor teg leen plan B par exemple am na ñoo xamante ne bi mën nañu bañ a woor te euh, ngant la mais ngant bi bu dàqoo dañuy fay seen boru yooyu moo tax ci alquran yàlla wax ni fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar tey ji boo doon jël vol di dem États-Unis tey ji nga xam ne dangay ngay voyager woor war na la mais mënuloo woor jigéen bi ëmb woor war na ko mais bu ragalee loru ci doomam mënul woor ki nekk ci eh, ji eh, baax woor war na ko wante baax bi tax na mënul woor donc kon am na yoo xam ne périodiquement du ñu mën a woor mais après am na leneen lu ñu leen di teg kon daal képp ku nekk jullit war nga comp euh, remplir cinq piliers de l'islam yi te boo remplir cinq piliers de l'islam yi koor war na ci sa kaw waaw xam nga euh, doomu aadama su fekkee dafa bëgg a jaamu seen boroom daf koy jàmm ni ko yàlla santaane mais pas moom ni mu ko neexee Euh, yàlla dafa ni jox naa leen mois béni ramadan muy muy vingt neuf wala trente jours léegi nag ku am ngant pour ma bañ dugg ci détail ku am ngànt ba tax nga leb après nga fay mais fay bi am na nu ko yàlla tërale yàlla waxul ne lebal naa la danga may fay mu kolewu par exemple boo leboon trois jours sunu borom neewu la nga fay ko mu kolewu de boo mënee nga woor tey toogaat ba beneen weer trois mois ci kanam nga woor benn fan bi nga am toogaat yeneen quatre mois woor benn fan bi essentiel bi balaa koor bi di ñëwaat na nombre jour yi nga jëloon namat parce que koor nombre jour yu yu yu ñu war a def la euh, Serigne Moustapha bi nga xam ne yàlla dogal na euh, Maroc euh, le roi Hassan II waxoon ne crise moo am si dëkk bi léegi dañuy dañuy moom kenn mooy rendi xaru tabaski ñi ci des duñu rendi xaru tabaski Serigne Moustapha ne njuumte la ndax yàlla quantité de goutte de yi mu soxla ñu verser ko ci suuf nandal ko ci suuf benn xaru waa ji kese mënu ko def yonent bi nekkoon na fi te terewul ñu doon def nangam ak nangam donc loolu ci ngay gis ñu yàlla nombre de jours rek la bëgg mu mat léegi nag ni nga koy complété yàlla da ko bàyyi euh, ci ni ci sa façon ni nga ko jekkoo mais am na koo xamante ni kii du def nombre de jours mais yàlla da koy wax taxawal ci sama jaam yi par exemple jigéen bi nga xamante ni bii dafa ëmb ragal ne doomam dafa bu bu wooree doom bi day loru te su woo su su période bi muy am doom bu koy nàmpal balaa boobu tabaski bi euh, euh, koor day ñëwaat ci kawam encore xam nga kooku boo ko xoolee mën na dund ñaari at ñetti at yu mu dul woor ñu ne ko léegi comme yow doo woor da ngay génnee looy jox miskin yi génnee un kilo cent di ko jox chaque jour nga génnee ko jox ko miskin yi mu remplacer li nga waroon a woor parce que dañu bëgg a sauver bakkan moo tax boo déggee kenn ku naan lislaam diine la buy rey c'est parce que comprendrewul enseignement l'islam xoolal ki ne ne jigéen bi ëmb nga xam ne bu wooree yàlla santaane koor de mu ne bu wooree xale bi ci biiram day loru mu ne ko bul woor su fekkee wóor na ko ni xale bi nàmpam su yaayam mu wooree yaay ji du am soow mu ne yaay ji nay joxe nourriture te bañ a woor rien que pour sàmm bakkanu xale boobu la. mais mais dog dog bi wala sax bor bi nga xam ne dañ koy amit des fois ci biir koor. Mhm. est-ce que daf lay neex rek est-ce que am nga droit mu neex la rek nga ne tey ceinture ma or nga ne du ma woor après dinaa ko fay. xam nga yàlla sunu borom daf nu daf nu sant ñu jàmm ko. mais duñu géttan géttanuñu dafa bëgg a bàyyi nga jaamu ko ak sa dignité xam nga tey jii nga toog nii noddkat bi ne hayya ala salaa nga dem yeesal sa njàpp changer sa mbubb kàbbar julli loolu moo gënal yàlla nit ne la yow doo jóg julli woor bi tamit dafa am ñoo xamante ne bi dañuy jàpp ne ñoom du ñu borlonte ak yàlla bu fekkee comprendre naa sa question du ma borloonte ak yàlla maanaam damay yàlla daal moom baax na baax goo xamante ni bii su ma ko lebee daal jarul ma koy fay yàlla moom du ma borloonte ak moom waa ñi nga xam ne ñuy dëkk du ñu fay boru koor fekk ne du noonu yàlla dafa am lu mu la dencal gis nga yàlla dafa wax ni wa an tasuumu na lakum mu ne même boo dee voyager woor bi moo gën ci yow eh, eh, science wane na nii science wane na nii woor trois jours dafay développer da maanaam dafay réanimer les cellules sèches doomu aadama dafa am ay cellules yu nekk ci biiram yoo xamante ne bi woor trois jours mooy dekkalaat cellules yooyu indil la beneen nga nekkaat nit ku bees sàq moo tax boo jógee ci woor da ngay gën a wér bon loolu science développé na ko ba mu gën a yaatu moo tax boo amul ba euh, yonent yi wax ni nañuy woor trois jours par mois mois bu nekk nañ ci woor trois jours rien que pour développer cellules yooyu nga xamante ni bii day day day day freiner vieillesse alors léegi jigéen bi su woo dafa war a bu bu lebee mu fay mais bu mu ko teg bu bu mu nekk topp seytaane wala mu topp àdduna ba bu lebee bañ a fay loolu si jigéen bu ko def rek di nga dajeeg sa borom bu la ko sa borom baalul. d'accord euh, léegi koor gi ci xiif rek la. wala dafa am suñu boroom chartal ne nii la ñu war a ooree maanaam xiifal la rek wala wala wala dafa amaat yeneen yi ci waaw xam nga koor dafa am lu ñoo tuddee sawmul xoos sawmul xoos su ma la ko doon tekkiil dama koy tuddee kooru primaire am na kooru seconde mais am na kooru universitaire léegi ma jëlal la kooru primaire mooy Mor bi dégg ñu ne weer bi feeñ na mu ne kon suba damay oor daal di jël ñu ne xëdd jot na mu xëdd arrêté lekkam dootul lekk dootul naan ba ñu ne dog jot na mu dog mais dara la bàyyiwul dara la bàyyiwul bu doon day day dam yee ma ngay dam yee bu doon day yoote ma ngay yoote bu doon dafay def lu nga xamante ni bi yàlla daf ko tere ma ngi koy def kooku mooy kooru primaire kooku moom lekk la woor et pourtant woor la mais lekk la woor am na ku nga xamante ni ki mooy seconde bi mooy koo xamante ni ki dañ ah wax dëgg yàlla dama woor kon wax dëgg yàlla dinaa fexe ba dama doon dam yee du ma dam dama doon yoote du ma yoote mais am na ku nga xamante ni kii mooy koor dëggantaan kooku moom douze mois lay woor du woor un an du woor un mois douze mois lay woor selon l' enseignement de professeur Serigne Mouhamadou Moustapha Sy yal na yàlla guddal fanam te yokk wéram waaw te sàmmal ko njabootam yi nempantam yi yal nañu ciis yal nañu xubbi macha allah alors euh, moom dafa wax ni idal maru saama anil xataaya fa kullu dahri yi seeru chiyaam yi nee na nit mën na wóor douze mois di lekk di naan di tëdd ak jabaram te fekk na mi ngi ci koor xam nga loolu soo ko waxee nit dana ko xaw jaaxal mooy nga woor deru gor yi woor deru gor yi doo lekk yàppu gor yi doo lekk alalu gor ñi doo def naka sudul noonu ba noppi doo lekk ci weeru période weeru koor bi doo lekk doo naan su boobaa dañ lay considérer ku nga xam ni woor nga douze mois parce que bu ñu nee wari nañu bu ñu nee wari nañu nga ànd ak nit ñi dem julli ji per bi nga julli jee ba ñëw léegi jeex na koor gi commencé waat na ci yow lan mooy koor gi commencé waat na ci yow mooy bëccëgu weeru koor bi danga dugg sa biir néeg fekk fa kaasu ataaya wala kaasu soow walla kaasu mburu wala daggu mburu nga romb ko jàll parce que da nga woor soo koor gi jeexee boo génnee ñu dénk la benn société nga war ko gérer wala nga war a bind facture doo ko gonfle parce que lu tax wooroon nga mburu mi nga moom kon da ngay woor dërëmu jàmbur loolu boo ko dundee période bi yëpp yaa ngi ci koor loolu mooy vooru universitaire moom la ñu tuddee sawmul xawaas il xawaas boobu nag moom la gaa yëpp di wër nag moom la gaa yëpp di wër waaw kay léegi euh, jullit bi nga xamante ni moom du woor hmm. du kooku lan la ko lislaam di sanctionné la koy waaw xam nga mën na ñàkk mën na nekk ci ñaari anam yi mën na nekk dafa feebar mën na nekk dafa feebar te waxul ngàntam dañ koy dogal ngànt ba xam lan moo tax woorul mais bu ñu xamee ni dafa bañ a woor ñu ne kon bañ a wooram gi fan la ko teg ñu ne bañ a wooram gi daf ko teg ci maatay bu fi lislaam nekkoon da koy obligé mu woor comme ni ñuy obligé ku julliwul mu julli su julliwul ñu daan ko mu kallaf bi tamit su wóorul dañ ko war a obligé ci kaw fekk na amul ngànt bu ko teree woor léegi nag nit dana am ngàntam fekk du ko teree woor man nga dem ci médecin mu xool la ne la li lii te de mënoo nettali ñëpp sa ngànt moo tax dañuy rafet njort ni mën na am dafa am ngàntam mais su amul ngànt rek su boobaa dafa war a woor su woorul nag am na sanction yu ko lislaam teg